hépatite B nag moo gën a yaatu surtout ci Sénégal gi ñu nekk hépatite feebar la boo xam ne bu duggee doomu aadama ci jël njëlbéenam mënu koo gis mënu koo xam lu dul mu def analyse de sang dafa am ay degré dafa am ay niveau ci yoo xam ne su fa àggee ci lay soog a mën a àgg ci lor la bu fekkee aiguë la bu nga xam ne hépatite aiguë la bu fekkee ne daf la jàpp moins de six mois boobu moo gën a yomba faj ñoo gën a gaaw a faj moo tax nit ku nekk war nga chaque année nga def bilan général parce que jàngoro yi léegi fu nekk la ko nit mën a jëlee ndax nit ñi léegi dañuy jaxasoo wante ci ay anam yu bari doomu aadama bi nag bu fekkee ne nit ki hépatite da ko jàpp mu def ak moom juróom benn weer te virus bi dañul ci yaram bi bu boobaa dañ koy ooyee hépatite chronique hépatite chronique boobu nag su fekkee ne nag dal na nit ki boobu moo gën a naqaree faj hépatite chronique dafa nekk loo xam ne su demee ba dugg sa deret ba commencé mën na dem ba yeewu sax hépatite chronique mën na nekk ci sa yaram te virus bi di nelaw mais mën na dem ba virus bi yeewu commencé def production bu boobaa nag bu commencé produire foofu nag fa la danger bi nekk. moo tax nit ki nga xam ne dafa am hépatite mu bañ a négliger ay rendez mu bañ a sàggane boppam it conseil yi ñu ko jox ci wàllu régime am mu respecté ko. mooy bañ a lekk lu niin bañ a manqué ndox tamit euh, fexe ba lépp loo xam ne lu niin la mu wattandiku ko bañ koo laal loolu dina ko dimbale ba virus bi bu naroon a yeewu sax ba nafa nelaw à vie tamit nga fexe ut ku ci xam dara mu waxtaan ak cee yow yee la ci am na ci ñoo xam ne nag bu ñu xasee am hépatite dañuy stressé wu foog na seen àddina yàqu na foog ne dee nañ fekk déedéet tel n'est pas le cas parce que feebar ak dee jotewuñu dara. hépatite du dara feebar la boo xam ne bu ko nit ki amee na siibur médecin bu ko xam wala mu seet ku ko mën a conseiller ci hépatite dimbale ko ci mu faju ba wér loolu la rek mais du problème boo xam ne problème bu extraordinaire la waruñu ko négliger di ko ñàkkal fay na waaye waruñu ko jox benn importance bi tamit ba nga xam ne day yàq sa àddina ba doo tala lekk doo tala naan doo tala dem faju ji parce que da nga yaakaar ne découragé nga comme benn patient bu ñëwoon ci man ne ma loolu anecdote la bu may nettali man sama àdduna yàqu na ren liggéeyatuma parce que perte na trente quatre trente cinq million si sama xaalis lu pare ma ko lu tax mun ne parce que ay parti damay dee moo tax soxlaatuma nekk di sonn si sama àdduna ma ne ko déedéet mu ne ku la ko wax mu ne ma xaw ma ki ma doon xool moo ma ko wax ma ne ko non du loolu. man ak yow ak moom ku ci njëkk a dee mun ne xaw ma ko mu ne ko maa ngi liggéey yaa moom mi ngay liggéey <laughs> yow moom xamuñ ku ci moom mu bëgg laa eh, liggéey parce que dañ ngay dee non dama nga dox liggéey bu la dee dabee nga dee man maa ngi nii damay dox ma naa xëy rek dee yow ya moom ma ngay dox ku ko wax ne ko ñun ñett moom mooy moom mooy dem wala maa njëkk dem wala yaa njëkk a dem ku ci kum ci leer kon yooyu bu la yàqal sa lekk bu mu la yàqal sa naan bu mu la yàq sa dama nga liggéey góor dëgg day fayit day reyante ba dee ñëw mu dee mu def ay devoir am loolu mu def devoir loolu moom mooy devoiru nit ki waaye waruloo toog rek feebar naa rek découragé sa àddina débrassé wu génn ci àddina non non loolu ku gëm yàlla sax waroo koo def moo tax hépatite B feebar la boo xam ne daal euh, alhamdulillah yàlla defal nañu sutura ci loolu ba am na ay gëstu yu bëri yoo xam ne am nañ ko ci am ci ay résultats yu am solo yoo xam ne ñu ngi ciy dimbalanteeg jullit ñi fiy ñëw ak jaam yàlla yi fii ñëw ba pas mal des patients yoo xam ne ñëw nañ fi am fi satisfaction tout récemment rek am nañ ci benn cas bu nekk Italie boo xam ne vence àlla woo nañu téléphone remercier ñu ne euh, confirmé nañ ko ne hépatite am wér na am naa ci ay résultats yu bëri te am na foo xam ne bu fa hépatite bi eggee rek mu ngi lay commencé gagné mooy ngay dem ba yegg ci ne ngay sentir sa yaram ay bouffées de chaleur yu métti wala ngay sentir sa bët yi muy soppeeku di di jaune wala ngay sentir sa làmmiñ bi di am lu weex tàll du jaune wala nga sentir sa biir di am ballonnement bu metti wala nga sentir sa lekk di yéex a digérer wala nga sentir sa naan boo naanee ndox mi du wàll du rees yooyu yëpp ay feeñuwaay la yoo xam ne ci hépatite boo ko am war ngaa xam ne sa hépatite bi ngi avancé te waroo ko négliger te tamit bokk na ci ci sa wàllu ndeyjoor sa fois bi di tàng jër nga koy sentir muy tàng hépatite mu ngi noonu di conseiller mbooleem sénégalais yi ñu xam ne feebar la boo xam ne feebar bu bon la feebar la boo xam ne yaatu na ci askanu wi léegi nit ki nag bu eggee ci état cirrhose mën na ko def cancer de cancer du fois cancer de fois mën na ko def euh, mën na ko def cancer de cancer du fois su ko defee cancer du foie mën na wàll keneen ki nga xam ne amul woon hépatite ndax hépatite mën na wàllaate mën nga ko jëlee ci rapport nit ki mën na am hépatite ngeen def rapport sexuel mën na la ko wàll foofu tamit mën na nekk hépatique bu àgg ci état cirrhose ba fois bi commencé yàqu bu boobaa tamit mën na la ko wàll ci wàllu ñaxam mën na la ko wàll wàllu dem cabinet mën na la ko wàll moo tax ñi am hépatite nit ki seen am hépatite seen kër su yeggee ci yetti yenn état yu avancé yi bu ñu koy dimbale tamit nañ sóoraale waale seen bopp bañ a gaañ seen bopp tamit ci dimbale ko waaye tamit ku feebar kenn du ko daw loolu lañ ci doon joxe comme ay conseil ci wàllu hépatite.